maa lay fay di wax ne onze billahi mina seetaan rajim bismillahi rahmaan rahim dina bon sant yàlla jun sant sama ñaari waajur nuyu sama nuyu waa Canaba Seck bu maam Cheikh Ahmad Tidiane Badara yàlla na yàlla yóbbu àjjana ak bépp bu julli bu fekk yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def di nuyu waa Thiénaba Seck bu baax suma papa ak suma yaay suma grand frère Modou Babacar Xiif Pam Ndoy Bolo maamam ñu suma gaal lañ fi nekk ñëpp ba ma kenn suma grand nas suma yaay Wade Sarr maa ngi nuyu askanu Sénégal senegal yëpp nuyu suma benn grand jibi si la au Paris maa koy nuyu bu baax nuyu famem nuyu awo nuyu suñu saali doomam képp ko xam ne fabi jibi si la ngeen nuyu bu baax ndoy yàlla mbaatu États-Unis yàmbu Ndiaye maman Mati Dabel Abdou Medina amital maa ngi nuyu waa États-Unis bu baax bàyyi moo tamit waa Gambie ku ci mel ne Ndéna Fall goro Pape Diouf Pape Bébé Baas ñu koy nuyu bu baax di nuyu tamit euh, ñoom Aïssatou Gambien sama fant club bi Aïssatou Gambien ak euh, ak euh, Thier président bi nuyu guy gi bu Serekunda guy bu sanc ba sama mama Kumba képp ku nekk Gàmbi rek ñu luy nuyu bu baax di la ziar la jox soo jaay ceer di la nuyu di la fay mm-hmm. gëm naan daal allah moom ñu njëkk bari dee xam naa ci la ñu bokk bu soobee yàlla waaw ren moom xam naa day xat mm-hmm. waaw mun na am sax ren mais bu muy parce que combat yi jël combat mag lay doon euh, du du du mën a yombee noonu ma seen du siti ma seen Sidi champion la nag mais du siti du siti ci man quoi champion la nag mais du siti ci man wallaahi nañ ñaan yàlla daal mu taxul jàmm ak salaam rek loolu daal mu ëpp mu ëpp sens mën na ci mënu ko mënoo ko daan ak nañ ñaan yàlla mu taxul jàmm ak salaam rek waaw promoteur woote nañ wooteeti mais liñ doon wax mooy Eumeu Sène mënu lu bëri def nekk ci contrat loolu moom wax nañ ko waxati ko quoi mais tamit ñi ngi topp li war a topp rek am ci yaakaar moo tax ñu bu ñu amoon yaakaar duñ ci wax quoi mu a bëree incha allah yàggatul dara daal incha allah. waaw gannaaw boobu tamit dañ koy nuyuwaat moom tamit passage muy nit ku baax koo xam ne vraiment moom nit la ko xam dañuy jël ci ma exemple quoi muy grand la njàng nit la ko xam ne vraiment du loo xam ni tey bëgg bëri ama seen moo tax wax ci moom loolu. nit la ko xam ne chaque jour bu génnee par wala bu waxee rek doon accam quoi. waaw te am nañ écho yoo xam ne ci moom sax moom jàpp nañ moom ñi mu war a bëri man ci laa war a bokk. mais nag euh, lépp daal nañ bàyyi ba incha allah ba mu taxaw ak am nañ ci yaakaar taxaw quoi. waaw balaa ci kaw bu taxawul tamit ñu xam ne warul taxaw rek mais am nañ choix pour bëreeg moom tey léegi gars yi tas daal léegi ñu tas yàggatul. làmb am na foo xam ceer boo fa toll da xaar sinon di nga yàq sa carrière. waaw di nga yàq sa que ñëpp ñi ànd yow xaaj bi tur rek lañ bëgg mm-hmm. bis boo suuxee dañuy yow li la arrangé nga nekk ci rek xaaj bi ànd ak yow yëpp tur lañ mm-hmm. bopp xam nga ak li dund li dundal seen seen seen yëw loolu rek moo la ñor dara ñoru leen mm-hmm. léegi nag yaay xam yow li nga bëgg xam li xam ni boo toll fii tey su neexee nga gis ñi nga xam ni gor lañ su naqaree ñi nga xam ni wax dëgg yàlla noonu yàlla bindee duñ jàmm sax mais noonu yàlla bindee quoi xamuñu xam nga ay yenn détails dem seen yow nga toog defarowaat xam li ngay jar xam yaay kan bu doomu aadama xamul yaay kan yow xamal yaay kan loolu rek moo am solo waaye Hygiène de Vie ëmb moom wax dëgg yàlla bu lu Hygiène de Vie sax dafa gëm li muy def comme ñun niñ ko gëmee rek moom ni mu gëmee boppam nañ gëmee suñu bopp mais Hygiène de Vie moom nit ki da nga xam sa Hygiène de Vie rek keneen xam hygiène de vie am keneen xam kii boppam mais moom wax dëgg yàlla boo ko xoolee xam ni wax dëgg yàlla gëm na li muy def daal loolu dañ ko koy nangul duñ toog nga ñu moom def am nañ suñu hygiène de vie na li ñuy def mais yooyu yëpp daal li am solo mooy ñaan yàlla rek muy man muy Sa Thiès combat bi taxaw rek ku ci taxaw daal yàlla may ko ndam loolu daal moom solo muy man muy Sa Thiès voilà. Hmm. jë caagri moom laa bëgg bëral mais da toog xaar ak gars yi léegi tas léegi ñu tas gaa yi moom fi mu toll nii ponkal doo tudd kenn ko mais léegi ñu tas yàggatul dara buñ tasee appareil foofu ceer da am lu bëri. mais nag voilà mais doo tudd nag dina ngi fii naan diw wala diw wala diw mais léegi ñu tas. waaw yàggatul léegi léegi ñu tas. du dama ci waxaat rek waxaat naa ci waxaat ci. Quench mënuma démb dafa baax tey man dafa bon. mënu woon dinaa ko may chance tey man dama ko may chance mais bu ñu waree bëri rek dinañ bëri incha allah amul benn problème. Mm. loolu moom saay bu ñu waree bëri rek bëri loolu moom saay moom jërul sax moom mu yàgg. waa non dama ne bu ñu waree bëre rek. dinañ bëre ko non ama ko ama tey coins li may boole moom man wax naa ko waxaati ko mais suñu waree bëre rek moom dinañ bëre loolu moom saa moom loolu moom faren ko wax ji bu dul ko ne bëgguma bëre moom wala tey li ma waxoon ci moom dama ciy génnaat soo ma dëppee micro leneen lay wax mais wax dëgg yàlla déglu naa ay sorteem rafetlu naa ko waaw déggoo naa ay sorteem rafetlu ko waaye tamit ah, nga xam ne sorte yooyu sort ñaan sans bo wax yëpp bu rafetlu bu jàllee mm. ma xolu ki ñaan may kenn sans Siteu may naa ko finance bëreeg moom boo Niang may naa ko finance bëreeg moom Reug Reug may naa ko finance bëreeg moom man awma problème boobu noonu waaw man awma problème boobu parce que sumay moroom lañ même donte ma leen rawoon sax bi may bëre ñoom mais làmb day làmb nit ñi dañ koy soxla ko kon mm-hmm. ni mu ko soxlaa rek bu ko nit ñi soxlawaatee te mu war a bëri rek amul benn problème dinañ bëri incha allah waaw waaw. d' accord Reug Reug champion la champion la ndaanaan la tey wax dëgg yàlla def na lu ne ci làmb daf fekk xam nga rek ay jafe-jafe moom ci làmb boo ko amee. Mm-hmm. yow ñëw na rek mais kenn ku ne xam ne nii. bëri na lu daan Quench Quench tamit bëri na lu daan Lac Rose yàlla mooy dana bi ñëw na jox na Quench ndam bi. Mm-hmm. Lac na dem defarwaat xam ni xale la dem wutiwaat rek ñëwaat defar takkaat jaan ji rek loolu rek la mm-hmm. rek la mbër mbër mbër buy xool ci carrière Eumeu rek doo découragé wu waaw mbër bu nekk mbër di am koo roy. royal ci carrière yu Eumeu Sène doo doo wu ci àdduna voilà loolu mooy àdduna quoi àdduna moom suñu borom dafa ñëw rek di di la wan ay misaal di xool ba xam yow noo ci jàngatee waaw yow yaay xool ba xam nag yi ngay jàngat yow loolu euh, iman la ci yow waa gëm nga ko wala gëmoo ko mm. waaw te allah am naa ci yaakaara ah, muy A ba S yooyu yëpp maa ngi ci tam Eumeu la waaw moom loolu kenn du ko dindi Eumeu la mais. bee la non bee moom nañ ci def code mais am naa ci yaakaar quoi am na B am D am S am E am Y yëpp am e, waa yëpp am na. mais daal am nañ ci yaakaar daal allah te yàlla nañ ci dimbali waaw surtout saa guy gi moom la baaw bopp buñ dajee moom. muy ñaar muy muy ñaari doomu Pikine yi. est-ce que boobu nañ boobu simple am Eumeu bu ñu doon bëre maam du koy. simple bu ma ko téewoon. Eh. bu ma ko téyewoon. <laughs> amoon amoon Pikine tey ñi ma bëreel ñëpp dëgg yàlla yàlla ak may suturaal muy caaro mais nag Eumeu Sène moom préparation spéciale lay laaj. Mm. parce que mënoo topp mbër mi di ko laaj di ko laaj di ko laaj ko laaj ñëw si meeku ñu ne àccam. mënoo topp mbër mi di ko laaj di ko laaj ñu ñëw. combat bi attaqué woo xeexoo bëre woo. waaw loolu moom ñaanuma ko yàlla. Eumeu mm. Sène moom combat bu taxee jàmm dama ko ñaan yàlla rek mu taxaw. daa mel ne fi ñu toll nag. li nga topp plat aay moo tax fi ñu toll guy yi macha bi nekk te du nelaw de. non non état bi état bu mboroxe mboroxe <laughs> comme liñ naan comme liñ naan état bara mais nag sant yàlla li tax man sant yàlla mhm. man xam naa ki ma war a bëreel ak ki ma bëgg a bëreel te Eumeu Sène bu ñu doon bëreel ak moom li ma la wax rek lu bëri man maa ko indi bëgguma ñëw estaat ñu ni guy gi mii lim doon wax Eumeu Sène dama bëgg bu aru siflee ma ne ko pare mu ne pare ma ne supporter yi jóg leen ma daw tàkki Eumeu Sène mu daw di laaw ma def góor durat jàpp ko ba mu dëgër wan ko ni wax dëgg yàlla xaaral ma yóbbu ko eh. yëkkatu ba ci kaw daan ko ndànk bu defee nag xam nga bu ko defee nag <laughs> comme ni Balla Gaye doon def dem noonu dem fee dem ci xujj soxna si ak ña lanjang ak saa bokkal nee na kaay leen toog ñu toog mu indi ko et cetera non kuy kurus ak sijaara ak kaamil jox ko ne ko nag li tax ñëwoon ma nga ñaan si ma bi nga demee Màkka combat bi doon mais léegi nag toogal nga jaamu yàlla ama seen ah. ma de. yaa ngi rafet baax na barki Seexu Tijaan li wax du caaxaan de. ah baax na ah Balla Gaye moom mu daanee pare day jox kurus ak sijaara yóbbu la retraite ah. man tamit noonu laay def. non déggoo li ma la xanaa man kay saa yi mbër la boo xam ne wax dëgg yàlla dama ambition bu bëri bëgg a bëri moom tey bëgg a moom du ay caagi rek tatatatataku du lool de wallaay du loolu te rus na arbitre sifflé ñu naan guy gi càmm wala rus na arbitre sifflé doxuma ci kaw ma seen voilà voilà te maa ko laaj loolu koy na nañ wala ñu naan wuu non non xalaatuma ko ci àdduna man bu may laaj nit li tax ma koy laaj laay wane waaw lay am nag dane décision bi suñu borom a ko xam eh. si